saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa coow la xiiroo baag mbiicoo ŋaayoo ba amoon démb ci arène nationale bu ñuy wax Carrefour wala sele ba yoon démb arène nationale mat nañu seede bira seen jiital CNG moo fa woowoon démb promoteurs yi ci naka la ñuy waxtaane ba mën a ubbiwaat làmb ji ci yan anam la ñuy ubbee làmb ji ba mën a bëre ci huis clos loolee moo nekkoon waxtaan wa doon am démb foofee ci arène nationale waxtaan woowee nag la ko sabab woon ci bira seen daal di koy ndàmpe ñi nga xam ñooy tëgg làmb yooyee ba écurie responsable écurie ya dee génnanoo sol seeni daal jubale arène ñoom dañoo bëggoon fekke ndaje moomee ndax lu njiig njaag ñooy njaag ñoo yore école yi yor écurie yi yor mbër yi bu ndàmpaay di am di jóge ci état kenn waru leen waaye ba ñu ñëwee ca salle ba ba ba noppi CNG da leen a delloowaat ca biti lañ leen xamal mooy ndaje mi ndaje promoteur yi laak CNG waaye yoonu président écurie yi lañu responsable écurie ya ci ñan la war jiital ñan la war jox gëdd lamb ji ñim ci respecté du ñenn ñu dul association amateurs yi communicateur traditionnels yi ak promoteurs yi waaye lii di responsable écrit yi waxu ci kenn lijjanti ci kenn ñeneen ñi lay waxal rencontre bu am ñooñee lay waxal boole wu ñu ci dugaluñ ci te moom dafa war a xam ne école yeeg écrit yi ñooy baasu lépp bu ñu waxee lamb école yeeg écrit yi ñooy baas bi ñoom président yi démb responsable yi moom nekk nii ña bàyyi seeni mbër fa séene koo bëriloo à huis clos mooy géejawaay Aziz Ndiaye agent wu Balla Gaye moo génn ne Balla Gaye pare na ngir bëri à huis clos ca eggee man Aziz Ndiaye danaa jàppale promoteur ba engagé naa Zador dana nekk sponsor ci bile événement Zador dana jàppale Gaston Mbengue ci événement yi rax ca dooli man dinaa ko jàppale ñu wëri ay sponsor huis clos daal bu Gaston pare pare na bu Gaston pare Balla Gaye pare na bu doon tey tey tey waa CNG démb bi leen wooloo da leen a wax kàddu yamu jële foofee ca Matar Ba ministre des sports leen xamal mooy am na fond de l'État boo xam ne danañ ko teg ngir ñu organiser à huis clos waaye day fekk promoteurs yi nangoo tëgg ñoom mbooleem promoteurs ya fa daje woon la xamle mooy valider nañu ko te danañ déposer suñu budget li ni mel moo war a journal ba xëy ni les promoteurs valident et déposent leur budget au CNG la mu xamle mooy valider nañu on nous a demandé de faire le budget de nos tamit la mu xamle mooy on est d'accord pour organiser à huis clos bu dee Siri Jaxate ma jóge woon ca Thiès démb la mu xamle mooy man noppi naa bu ñu bëggoon suba ma ubbi ko huis bi bu dee nangu nañu suba ma njëkk koo tëgg bu dee suñu papa Adama Bob la mu xamle mooy bu ñu déposé ba noppi CNG dana def la compilation de tous les budgets rax ca dolli na ña ëpp ca ñoom sax déposé nañ seenu budget ñeneen ña ca des ni ki suba wala ginnaaw suba dana def yokku ya ñetti saison bu ñu xaymaa lañ ci am ci ay victoire mu ngi toll ci 21 victoire ci ñetti saison yooyu ñu ci am ñaar fukki defet ak ñett 23 defet lañ ci am ak benn match nul mooy wane ne équipe bu mag boobee mu ngay jey tànki disparaître saison 2017 2018 8 victoire lañu am 9 defet ak benn match saison boobee Giri dafa daanu Brisli dafa daanu Lacrosse dafa daanu Forza ak Général bu Fass ñoo sauvé muy Gris Bordeaux di Forza di Lac Rose di Gris amul kenn ku ci am combat même ña ca am combat sax jotuñoo bëre loolee moo waral journal ba xam ne laata lamb jee ñoom waa Fass ñoom la njëkk a positif jërë ngeen jëf mbokk yi li li gën fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox